plateau bi dina jariñ doomu adama yépp tay rek ñu wara waxtane ku tedd di serigne Saliou mbake ibnu khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu war ci and ak serigne Assane Thiam war ñu ci waxtaanal waye comme ñu koy defé sa su ne rek ba ci and ak sama xarit bi soxna Kumba comme soxna Kumba ñu lay nuyu baax di lazia, ziar waye non lay def di nuyu directeur bi di Eldo ñu koy ziaru baaxa baax di nuyu ndom ñepp da ak ñu si technique bi ñom Kia Khalil ma ngi leen di baaxa baaxa baax kon ko bañu bayila rek kon nga nuyoog téléspectateurs yi dalal suñu invité inshallah inshallah incha allah jërëjëf ni Mamadou ni am contenté bu baax di dellu si ci émission roy kay di wax assalamu alaykum wa rahmatullah ñi nga xamante ne ñoo safoo à TV la première télé urbaine de Mbour tay nak ñu dellu si comme ni ko Mamadou waxé rek suñu émission roy kay bi. xamné ne téléspectateur ak internet a TV wax dëgg na namoon nañu lool lol lol lool <laughs> ndax. bu ñu xoolee depuis koor ga ba tey tey mooy suñu première euh, numéro royukaay bi ñu war a waxtaanee ku nga xamante ne ku jar a waxtaane la waaye nag euh, li ñuy wax à chaque fois ndaw bu bëggee avancer wala mu évoluer ci li nga xamante ne mooy dundam il faut mu ku nga xamante ne ku naw kuñ nawloo la muy roy ci moom waaye nag sam suñu kilifa daf ñu ko daan wax nit su bëggee jariñu day jël jikkoom def ko Euh, mbubu Baye Fall jikko bu baax bu mu gis wala jëfin bu baax bu mu gis mu boole ko ci boppam bu yàggee mu raw ñépp tey nag ñu war a waxtaanee ki nga xamante ne mooy Serigne Saliou Mbacke tax ñu dalal fi euh, mbokk mi nga xamante ne mbokku daara bi nga xamante ne suñu kilifa bi nga xamante ne <laughs> duñu dañuy dégg loolu di moom mii sëñ Assane tey ñu dalal ko suñu plateau xam naa dañ koy bàyyi rek mu ko mbokk yi balaa ñoo dugg dëgg-dëgg ci bi li nga xamante ne mooy vie et œuvre Serigne Saliou تفضل سري وهب لي العلم الصحيح والحمل الصالع الذي يكمل الأمل صل على صالح وهو المصلح الصادق صدق صلاة تصلح ولتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا قديما صالحا مع سلام لي يصحيح الحمل الصابع الذي يكمل الأمل أدني سنساله وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء والا ترجعون بركب سرين سالهم جنا بن nu يالا اكو بيننتم yonenteem جاجي فال شيخنا سي احمد بامبا Ahmad رسول الله يا yaakaari جامي di jaral kër Sidi Ibrahima Fall lamp babil muridina di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha xalifatu am li tay ifil muridiya mu gën fee yàggul te gën a wér di ko ñaanal jëwriñam ju jàmbaari ji di sëñ am ni Moustapha Modou Mbenda Fall di ko ñaanal sunu jëwriñu bopp di Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Salihu yàlla na fi gën a yàggul te gën a wér Mbacke ñu ngi ziara mboolem waa plateau bi sëñ Mouhamad ak soxna Euh, Kumba maa ngi leen di ziara bu baax. Mm-hmm. di leen ñaanalit bu baax tawféq. Mm-hmm. di ziara bu baax euh, jëwriñu kër gi. Mm-hmm. di borom kër gi. ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko sunu borom gën a defal tawféq. amiin incha di am contentement bu baax nag ci dalalaat gi. ak yaatalaat gi. ngir jàmbaar ji nga xam ni jàmbaari diine la waaye nag di jàmbaaru murit tey royukaay. tey sëriñ bu mat sëriñ ñu war ko waxtaanee. ñu ngi gën a bu baax waaye nag di ziara mboolem fonda fondation sopp Serigne Saliou yi mhm. muy fondation sopp Serigne Saliou ak fédération ak ànd jëfal ak mboolem koo xamante ne yaa ngi ñuy bàyyi xel rawatina ahlu xasida ak ahlu ndonga daara it ahlu tarbiya yëpp mhm. ñu ngi leen di ziara bu baax te di leen ñaanali tawfeex ñu ngi leen di delloowaat waxukaay gi ba mu ñëwaat macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax nuyoo bi am na solo wax dëgg yàlla xam naa dañuy ñëw rek ci li nga xamante ne moo moo ñu fi tax a daje tey mu nekk waxtaan ci vie ak œuvre Serigne yu mbàkke mhm. ñu bëggoon a nga wax ñu kan mooy Serigne Saliou Mbacké bi nga xamante ne moom lañu war a waxtaanee tey. waaw mbokk mi laaj nga laaj bu am solo. Mhm. muy kan mooy Asayxuna Seex Saliou Mbacké. Mhm. Serigne Saliou day ku neex a waxtaanee waaye nag di ku naqaree waxtaane ndax li tax mu naqare waxtaane mooy asayqu saalihu tajidin l'islam bu doon jëmm la bopp bi mooy sëriñ saalix li tax mu neex a waxtaane nag daa ànd ak ñun liggéey bi te jëfe ko ci sunu kanam lu bari ñu ànd koog moom it te it fekke ñoo xamante ni danoo jamanante ak ñoom sëriñ saalihu bu la bëggee wax ci moom euh, doy na ci ñu ne la borom tuuba mooy góor bu ko borom Tuubaa jurul woon doy ci ñun la maam Mor Anta Sali mooy maamam wala ñun la maam ay sa mooy maamam kon ci wàllu baay gi day daal di mate sëkk te boo ko toppee da ngay dem ba ca alxuseynu ñu ni kan mooy waajuram bu jigéen da wax te jur waajuram bu jigéen muy sëñ Moodu Asta Jaxate ak soxna Jeng si libaas soxna Dieng si la libaas daa liggéeyal yàlla mm-hmm. nu mu amee soxna Faat Jaxate ndaxte soxna Faat Jaxate daa nekkoon jigéen ju mat jigéen te mat loolu la mu doon te it nekkoon ko ragal yàlla waaye nag soxna Dieng si la da koo liggéey ndaxte dam koo yónni woon mm-hmm. mu dem ci ab dëkkam maam Moor ma suñ Moodu Asta Jaxate daan ne ko na nga ñibbi si ci altine gi mm-hmm. altine gi bagaas yi yoroon xaw a bari mu ñëw ci talaata gi bi mu ñëwee ci talaata gi bi mu dugg ci kër gi guddi na mu soxna euh, euh, euh, suñ nuuru asta daan ne ko ana kooku mu ne ko man la soxna jën si la mu ne ko kañ laa la waxoon nga ñëw mu ne ko altine mu ne ko lu tax nga ñëw tey mu ne ko bagage yi bari woon ba mënu ma woon xajul ci altine gi moo tax ma ñëw ci talaata gi mm-hmm. mu daan ne ko sa tànk boobu bu mu fekk bi ci des léegi mu ne ñun àndal kon dem leen fii laa am ndigalu fanaan fii ba keroog may am beneen ndigal mm-hmm. soxna jën la foofu la fanaan taw bi sëb ci kawam boobu mu ngi boot sëñ sëñ Xamsatu Jaxate mi nga xamante ne mooy magu soxna Faat Jaxate mii di waajuru Sëriñ Saaliw ba mu fanaanee foofa ci njël gi sëñ Muuru Asta war a génn bi mu génnee di dem ci jàkk ji gis ko mu toog waaye boobu bi muy taw mi ngi sëpp sëñ Xamsatu Jaxate ba pare sëgg ci kawam ngir baare ko ndox mi moom soxla Jëng si la libaas bi mu ko baaree ndox mi ba taw bi sëwét mu ne ko ana kooku mu daal ni ko man la jëng sil la mu ne ko ana loo defoon mu ne ko yaa ma joxoon ndigal te ba léegi waxagoo ma fu ma jëm mu ne ko mën ngaa dugg daal ni ko soxna jëng si la léegi lebal nga yàlla te di nga xam ne yàlla dina la fay moo tax soxna jëng si la moom li mu daan bàkkoo dani mboolem doom ju la góor jur bu dee jigéen borom tuubaa dëkkoo na ko bu dee góor it borom tuubaa defar na ko kooku mooy waajuru soxna fat jaxate miy waajuru kii ñuy waxtaane muy Serigne Saliou soxna Faat Jaxate mooy waajur Serigne Saliou wu jigéen soxna Faat Jaxate daa mokkaloon alxuraan am mbindum kaamil nag moom mbindum ba xam bind naag bindul moom leeru ma ndaxte gisuma ko wala boo dégguma ko waaye ko amoon xam-xam la it soxna Faat Jaxate ku ñeme woon sarax la te lépp lu daan def da koy def ci biiri taalibe yi moom soxna Fatou Diakhaté. dégg naa am na ay soxna yi nga xam ne ci kër sëñ bi lañ féete woon ñu si bëri moom la leen féetale woon ci laay ci laay ñëw nii. Mm-hmm. waaw nga xam ni. Mm-hmm. bari na ci ñoo xamante ni sax moo leen daan jàngal am na ku naan ci soxna Mati Diakhaté. Mm-hmm. soxna Fatou Diakhaté moo ko jàngal ma saa di Masaalikul Jinaan jàngal ko Risaala. te boobu mu ngi ci biir kër Seexul Xadiim gi waaye lu jiitu mu ñëw ci biir kër gi. maam Thierno borom Touba da ko yónni ne ko demal nga wërali ma koo xamante ni eh, juróom-ñaari maamam ba fi mu nekk nii ni mosuñoo lekk lu dul riba mosuñoo mosuñoo mu mu dem ko bi mu ko wëree am na ku njëkk a gis waaye bi ñëwee borom Touba daa jël loxo bi teg ca bopp ba daan ne ko kii da baax na loolu waaye du ma soxla nga xam ne bi mu demee mu daa koy eh, yebal méew nu jaxate bi mu demee méew nu jaxate eh, ak fekk soxna faat jaxate di di di di dox di tari alquranul karim mu xam ni kii la ko borom Tuubaa doon wërloo mhm. mu wax ko sëñ Mourou Assa Jaxate sëñ Mourou Assa Jaxate daan ko loolu kay bismillah daan ko daan ko du fi fanaan <laughs> loola moo ko indi kër borom Touba. macha allah waaw waaye nag soxna Faat Jaxate comme ci ñu développé tuuti ci moom ndaxte moom daa nekkoon koo xamante ni. daa nekk royukaay ndax lii may wax nii. ngir soxna yi man cee am. mën cee am dalil uh, mën cee roy. <laughs> ndaxte waxtaane ko baax pour ñu ko moo tax ñu koy waxtaane mhm. waaye soxna Faat Jaxate ñim doon yar musta lekk fugul ci seen biir te ku ñu ma woon ab sarax la te saraxam di ci ëppoon laax la waaye ñi nga xamante ne daan na leen roy lépp lu muy def ci seen biir la koy defandoo moom it ku bëggoon cuuraay la Quran cuuraay la lu bari la. <laughs> te te te lépp lu muy lépp lu muy wax. waaw waaw waaw ci set la bokk waaw kay. waaw nga xam ne lépp lu muy def da koy defandoog ñoom ngir ngir ngir ngir ñi koy gis di ko ko royee. Mm-hmm. moom soxna Faat Jaxate waaye soxna Faat Jaxate lu jiitu muy am Serigne Salihu. Mm-hmm. amoon na Serigne Abdul Quddus euh, amoon na Serigne Abdul Baqi. Mm-hmm. amoon na soxna Tahiratu ñoom ñëpp nag danoo làqu. bi ñu làqoo mu amuk njaaxle nag. ba ba ba am lu ko naqare loolu borom Tuubaa daan na ko daan na ko Faat Jaxate mu ne ko Mbàkke mhm. mu ne ko suñu borom dencal na la loo xamante ni bis bu gan googu ñëwee di nga fàtte ñii dem kooku mooy waajuru Serigne Saliou Mbàkke jigéen dundam dafa yaatu. Mhm. soo xoolee ci waajur yi nga tàmbalee rek suñ ko suñ ko moom donc doyoon na émission. waaw waaw doyoon na waxtaan <laughs> kon jàll ci sëñ Saliou ci maanaam njàngam. Mhm. fu mu jaar ci wàllu jàng xam-xam ndax ku amoon xam-xam la moom ku géej woon na ci xam-xam fan la jaar nag ci wàllum njàng moomu. macha allah waaw laaj boobu moom dinañ ci sawar a tontu lool ngir ñun ñi nga xamante ni bëgg Serigne Saliou te di ko topp ngir mën a nangoo jàng ci xam-xam Serigne Saliou bi muy nekk ndaw daa nangu woon jàng Serigne Saliou bi mu ganee àdduna 1915 ci sulu xeexada di dugg Tabaski tomb 22 euh, septembre ci weeru wolof mu nekk eh, fukki fan ak ñeent bi mu ganee àddina ba toll ci njàng sëñ Amsatu Jaxate ndi jaayam ko jox sëñ Amsatu Jaxate jël ko boole ko suñu Alsaan Jaxate suñu Alsaan Jaxate ndi jaayu sëriñ Saalix la mm-hmm. moo ko jàngal alxuraan ba mu mokkal sëriñ Saalixu nag ci sekkare bu ndaw bi muy bind kaamil bi mu beqee ba toll ci bindu ba bind euh, juróom-benn xisib bay dugg ci ja juróom-ñaareel ba ba toll ci laaya wa ma muhammadun ila rasulun qad xalat min qablihi rusula afa in maata aw qutila qalabtum qalabtum ala aqaabikum ca ko tàggee baayam bu tedd boobee moo tax mm-hmm. saa saa sooy jàng alxuraan ba àggu foofa mm-hmm. mu nga yëg ko nga ñàkk ko yëg Serigne Saliou day tuuri xéewal waaye ba mu jógee foofa mm-hmm. jàngee na tindóo di ci kun naan sëñ Maxtar Dieng ci sëñ Modou safa jàngee na tamit ci sëñ Mbàkke Bousso sëñ Mbàkke Bousso ku yaatu la woon te ku amoon xam-xam la te jàngal nag euh, jàngal ci ñooñu borom tuubaay ñu bari géeju woon lool nag ci ci xam-xamu fiq ak sariya lépp nga xam ni borom Tuubaa daa dëxiñoon mboolem luy fànn xam-xam ci sëriñ bàkke Buso boole ko nekkoon ko ragal yàlla sëriñ Saalihu bi mu jógee foofa 1928 dem na mu dem na mu jaxate nga xam ne mooy dëkku waajuram wu jigéen dem na fa jàngi ci mboolem fànn xam-xamu sariya ci ci ci lu muy mën a doon nag nga xam ne foofa kun naan sëñ Mor Faasam jaxate jàngal na ko euh, xam-xamu sariya euh, kun naan sëñ Ahmadou Saw jàngal na ko tamit lu jëm ci xam-xamu xilmul felek ak zaxfaraat ak xilmul nujoom waaye kooku Ahmadou Sow sax demoon na ba bi mu koy jàngal Serigne Saliou moo daan yëkkati xaalis di ko fay ngir mu jàngal ko. nga xam ni jàng moom da ko jaraloon lu ne moom Serigne Saliou waaye ci ak ci tuut tànkam mboolem lu luy doomi soxna di xam rek Serigne Saliou jàng na ko ba ba peeg ko téye ci ay loxoom te taxul nag mu bàyyi benn yoon ndax Serigne Saliou dem na ba nga xamante ni eh, eh, nekk na xalifa di di continuer di am yoo xamante ni da ko doon yër dem na bay toll ci yare sëñ Modou Moustapha nekk fi ba jóge fi sëñ Fallou nekk fi ba jóge fi nekk fi sëñ sëñ sëñ Saliou di di continuer di jàngi ci sëñ bu Busso kon kooku ku ku ku ku ku ku ku nangu a jàng la te te xam ni euh, am njàng akub jëfe moom rek dafi nekkoon ndax daa yàgg di jëfee man amila saalihan fali nafsihi mm-hmm. te da koo tegoon ci eh, eh, tatajaafa junuubuhum anil madaaji mm-hmm. kooku mooy Serigne Saliou ci nangoo jàng ak nangoo gëstu ci mm-hmm. ci ci fànn yëpp. Uh-huh. ñu gis ne moom ku ku comme mu ko waxee ku bëggoon gëstu la. ku bëggoon xam-xam la. waaye ñu gis ne tamit ku ko mënoon a joxe la. ndaxte bu ñu xoolee eh, Serigne Saliou ndaw ñi nga xamante ne formé na leen ci daara mhm. bëri na ñu bëggoon nga ñëwul ñu euh, tuuti rek ci daara yi nga xamante ne samp na leen ak ndongo yi nga xamante ne doon na doon na leen jàngal ci wàllu xam-xam euh, laaj boobu day laaj bu am solo te géeju ndaxte li tax mooy euh, moom Serigne Saliou ni daan yare noonu la daan jàngale te bu lay yar day bàyyi comme man may jàngale daf lay jël jox ma la man maa lay jàngal waaye ci biir jàngal gi ma lay jàngal Serigne Saliou moo yor éducation moo lay yaral boppam. Mhm. da ngay ñëw euh, masala da ngay ñëw tissu li ci kanamam. nga ni teg mën la neel alhamdulilah. Mhm. nga ni alhamdulilah. boo waxee alhamdulilah mu ne yarhamakallah nga ni tekk mu ne waxfir wa waxal yaxfirullahu lana lakum wala yahdiyakum allah waas la baarakum nga wax ko. Uh-huh. nga wax ko mu daan la loolu daa bokk ci diine. bu ëllëgee dee ko wax. waaw nga xam ne loola borom Tuubaa sax eh, ci ak yaram daana def noonu. bu la musaane dénkiy gone. Uh-huh. day jékki-jékki woo la am na ko mos a tissué ci kanamam comme nii waaye bi mu ko defee sëriñ bi dani ko. Uh-huh. ana kan moo la yar kan moo la jàngal mu ne ko diw mu ne ko jóge fa dem ci keneen. daane ko loolu daa nekk loo xamante ni bala ngaa dal baalal la ko war a jàngal mm-hmm. waaw nga xam sëriñ sa daana yare noonu daana toog ak daan ni ko boo dugg ci léegi day wax asalaamaaleykum mm-hmm. dégg nga mm-hmm. nga ne ko waaw mën nga asalaamaaleykum day ubbi bunti xéewal day ubbi jàmm daan daa bokk ci diine dee ko def nga xam ne moom daana yaree noona waaye ci biir mm, mm, Serigne Saliou l'âge de 16 ans la la samp daara waaw daara ju toog ndaxte waa la samp daara ji toog. Mhm. waaye 15 ans la njëkk samp daara. Mhm. bi mu sampee daara. 1923 astafurla 33. 30 31 la nekk noonu jaxate. Mhm. Euh, wut fa daara. Euh, wut fay tool. bi mu fa wutee tool euh, bay fa. mbay mu nangu macha allah nga xam ne dem na ba ñi xamul woon turam sax mbay mu nangu mi borom mbay mu nangu 33. Euh, mhm. mu daal di dem samp neexaan. daara jooj nag daa gént muy 33. bi mu sampee neexaan la tax mu gént daa dem njaareem bis bi mu fekk gaynde gi jaar ci digg daara ji ñu daal di jël ab këll këpp ko ci. Mhm. bi mu ñëwee ñu daan ko mbàkke gaynde dafay jaar mu daan ne ñu ne ko waaw mu gental daara jooju te la ñëw boori mbuur euh, ci euh, bi mu ñëwee côté Thiès romb waa Thiès yi ba ba fi tolloo got Mm-hmm. mag ñi mag ñam fa fekkoon ñu ne ko yow xanaa bëggoo dëkkam ak ñun mën leen axakay ñu ne ko dañ dafee bëggoon a jox suuf nga xam ne moom bi mu nekkee foofu 1934 ñu jox ko gox taxul nag suuf si doy waaye daraan daggaatu ay suuf fu ci demee ni ay toobeen euh, euh, daaru faal daaru sanna fu ko mm-hmm. nekk daana dem dafa wut suuf ngir di mën a bay ndax Serigne Saliou moom dundam géeg bay la ak jàngale te lim daan bay lépp mosu cee lekk doomu gerte Euh, euh, ci histoire sa 1932 googu bi lim njëkk a bay muy muy fukki kilo gerte yi. Mhm. daay da cee xool li ab doom téye ko ba sàqami ko jékki-jékki buusu ko daane araam na addi ji may jox sëñ Mourou Sow ma di ko lekk. Mhm. nga xam ne daana wax donga yi ci ni mu leen yare ñu naan ni leen mboolem loo xamante ni dañ koy bay nanuy fexe ngeen ni may def ngeen koy def. ñu mhm. ngi ànd di ko yóbbul borom Touba ndaxte bu ëllëgee ab nenkat boo ko jëlee baxal ko. Mhm. lekk ko mënatoo koo góof ba mu jural la cuuj daan nan fexe ba nen ñi nekk cuuj daan ne képp koo xamante ne da ngaa baxal sab nen àdduna ba lekk ko bu ëllëgee ma xiyaam doo fa amub cuuj. Mhm. nga xam ne lool daa nekk xikam yoo xamante ni. Mhm. ci gone yi koy wax dañ ci dañ ciy déggee kii ni li muy def ñun la koy def nga xam ne ci biir njàngalem googu ak yareem googu Serigne Saliou mus naa ñëw ci daara ji daara ji bari gunóor lool mu xalaat ni bu ma demee. bàyyi leen fii dina xaw am nu nuru. moom Serigne Saliou ci ci mbaax gi mu dem bay génn daara ji daal di duggaat daal di sànni wax bu ma demee da da yéen naan damaa am pexe ba dem bàyyi leen fi ak gunóor yi daal dama fiy toog ak yéen gunóor yi sonal leen sonal ma ba ngeen xam leen maa bëgg. borom bu baax sax si leen bëggoon ñoom daanaka moom dafa amoon benn modèle bu mu doon yaree. ci wàllu tarbiya. Mhm. naka la doon tarbiya ci biir daara ji. loolu bëggoon nañu nga a baax. waaw xam nga tarbiya. Mhm. mooy jihaadu nafsi nga xam ni Euh, tarbiya dafa dafa latte ba nga xamante ni tur bi. Mhm. pour mu mënee su ko wax te waxuñu dëgg-dëgg tarbiya. Mhm. Serigne Sall lim tarbiya ci nit daa am loo xamante ni dafa nekk ci dafa bokk ci doomu aadama. Mhm. muy yii nii ma lay limal muy tàyyeel. topp sa bakkan naajee yeewu wala euh, euh, tàyyeel ci jaamu yàlla. wala ñàkk jom wala xeet yooyu noonu te bokkut ak sàcc gi demee noonu. Serigne Sall lii lay njëkk a tarbiya ci yow. ba génn ko ci yow def ci yow nangoo liggéey. def ci yow am jom mhm. def ci yow bañkat mhm. moom Serigne Saliou dina dem ba def ci yow loo xamante ni danga dangay taxaw daal di kuru Serigne Saliou gënuma Serigne Saliou tarbiya gi muy def ci yow lii la njëkk a tarbiya ci yow muy def ci yow jihaadu nafsi ba sa bakkan du la noot ci dara mhm. bu demee ba sa bakkan nootu la ci dara ci lay lay Serigne Saliou door laa jàngal nan ngay xamee àddina Serigne Saliou diir bi ñu nekkee dalay jàngal ak nite ndax ku nite woon la ci lépp nag waaw ci météo la ci lépp ci fànn yoo xamante ni lu ca nekk da koy dund ak yow ndaxte ndox mus naa manqué ci daara ji mm-hmm. bi mu ñëwee indaale guttu ndox bi muy naanee ak satala gi mm-hmm. bi mu ñëwee ba teg ko ñu ne ko mbàkke ndox amu fi mu daane ha ñu ne waawoo mu daal di génn gutt bi indi satala gi daal di xel di jox gone yi ñuy naan ba gutt bi jeex mu génn satala gi ñuy naan ba lépp jeex mu daal di yëlëb gutt gi yëlëb satala gi daal nag léegi ñun ñëpp a yaman ñun ñëpp a yaman daal di ndox umu fi <laughs> damay mar ànd ak yéen ñu mar waaye nga xam ne loola mooy bàyyi xel mooy bàyyi xel bi bàyyi xel gone léegi xam ne loolu dem na ba ak jeexatal ci ñun ba nga xamante ni mm-hmm. man ak yow mi wala man ak kumba mi buñ bokkoonu kër mm-hmm. ngay ngay tumuranke damay tumuranke ànd ak mm-hmm. waaye du ma du ma du ma du ma la bàyyi ci ak tumuranke ba pare nekk ci ak naataange non ci bàyyi xel googu sax maa ngi déglu benn kii rek waxtaan sànq doon doon na gi sax da ko doon xool maanaam xale yi ñu doon lekk yépp da ko doon xool bu baax a baax ba ci seen seen wér-gu-yaram da ko doon jaral sax ci tawat tawat bi xaw a yóbbu la ba Ndakaaru waaw yóbbu la Dantec ñu ñu entraîné defal la lu ñu la war a defal nga doog ba wala wala dem di dem di ba ba wér mu doog laa indiwaat ci daara ja xam nga bàyyi woon baax a seen wér gu daa baax <laughs> <laughs> <laughs> waaw ndaxte bon gis nga <laughs> am na bis dawkat yi ñoo daw. Mm-hmm. bu ñu dawee ñëw ci kër gi. Mm-hmm. ab diir sëñ Saliou daal di wax euh, mag mi nekk ci kër gi daana ko wol ma wol baytaay ba daana ko wol ma Samba Boy mm-hmm. bi mu bi mu ñëwee mun ko toggal ma leen añub Samba Boy. mu ne ko lan mooy añub Samba Boy. ndax dawkat yi dama caa bari woon xarit sax nag am na samay xarit la dama bokkoon ci dawkat yooyu. ay ñoom sëñ Assane Mbacke <laughs> man man moom maa dàqoon a daw ñëpp <laughs> man a daw mu ne ko lan mooy añub mu ne ko ceebu kecax sëñ Sall daane ko déedéet mm-hmm. añub mooy ceebu ginaar mm. gu am li mu war a am lépp te li war li mu war a ànd lépp na ànd ak moom. pour jox ko dawkat <laughs> waaw mooy loolu mooy añub sàmba nga xam ne waaye uh, uh, loolu lam ci jublu mooy mm. ba ngeen dawee demoo leen seeni kër nday da ngeen daw ñëw ci man am na bis am ku daw it euh, ko daan dawalal góor a jéey góor a jéey da da da ñëwee ba indi ko mm-hmm. mu ne ko góor a dama nga tàngal café gi bi mu demee tàngal café góor a jéey daa ñëw fekk Serigne Sall di tuure xewal mu ne ko xanaa di liy jaaxal na la mu ne ko waaw Mbàkke mu ne ko kii kat daa daa jàkkaanoo ma xool ma ba mu neex ko mm-hmm. mu ne ma yaa ma gënal sama ndey ak sama baay daan lii la lii moo ma yóbbu ci étape bi ma toll. te loolu demoon na ba nga xamante ni ndax borom Touba daa wax ci inna ni a'udhu bil ilahi mu'izin waytu bashir bi al yataama dawaamam andim bi abaahum kulla yanin mm-hmm. mu ni ñi ñàkk ndey ak bàyyi na nga ma leen remplacer ma nekk seen ndey ak seen baay. waaye loolu seriñ Saliou bi mu ñëwee da koo jëfee ci ñun ñi am ndey ak baay Serigne Saliou féete ñu. Mhm. fu sunu ndey féetewul ak fu sunu baay féetewul. macha allah moom Serigne Saliou mhm. bokk na ci wàllu wér-gu-yaram daana gis koo xamante ni day ami góom lool bu koy bu koy xool sa du ko bëgg a xool day mel lu fatt kanam gi di ko xoolee catu bët. ngir yërmande ji. ndax waxuma la doomu aadama sax waaye mos naa dugg xel comme rek. Mhm. seen benn nag buy buy buy soox. <laughs> waaw nag buy soox rek la gis. am na bis daan. doon bi dafa doy waar. waaw am waaw Serigne Saliou mooy yërmande. Mhm. as-saaliha. Mhm. Serigne Saliou mooy yërmande joo xamante ni. coobarab suñu borom ndax Serigne Saliou day day day day day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikko. ci lépp nag ndax wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin. Serigne Saliou daa ñëw jëfe ko. tey jii nii man ku ma doon décortiquer loo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Saliou laay indi. Mhm. ngir ci ay jikko yu rafet. Mhm. Serigne Saliou bëggul bëggul kenn ku mer waaye nag ay gone moom kenn du leen laal. Mhm. ndaxte koo xamante ni nee na seeni waajur dan maa doy doyloo ma ba ba jël leen indil ma leen dinaa leen defal loo xamante ni dina jomm seeni waajur. am na ci koo xamante ni mus naa ñëw ci daara ji. mel ni ko xeeb. mel na ku xeeb gone yi. Mm-hmm. ci ci ci seenu xet ak yooyu. Mm-hmm. ñoom Serigne Saliou mer ci lool daani ko sax laaxu de yaa leen yaa yaa leen gën a xeeñi xet foofu ndaxte fii nga toog ne xetu bàkk ba xet bàkkaaru njaalo moo may xeeñ ci yow te tudduma ko. Mm-hmm. daani ko kon sama xetu gone yi wëroo leen sama xetu gone yi moo moo gënal yàlla lu dul moom. nga xam ne am na fa mu tegoon gone yi. ci yërmande ci ci ci ci ci lépp loo xamante ni moom Serigne Saliou daana ko jëflante ak ñun ci ci ci ci yërmande ñu gis ne moom euh, comme ni ñu ko waxee rek yërëmoon na leen yërëm bu nga xamante ne ñu bëri comme ni ko Serigne daara bi defee léegi xam ne am na si ñu nga xamante ne sax nekkuñ di ko def mais ñu bëri li ñuy def mooy dóor booy booy jàngal nit di ko dóor yenn dóor yi wala nga koy métital yenn métital yi ñu déglu ci ay waxtaan yu bëri ko ne Serigne Euh, doonul woon bëgg ñuy dóor ñi nga xamante ne ñoom lay jàngal mhm. muy ndaw yi fa nekk ci yërmande bi mu amoon ci ñoom tax na doonul woon bëgg kenn ku leen dóor wala wala ci loolu sax waxoon na ci ne maanaam sëriñ yi fa ne woon doon jàngale da leen wax ne maanaam jàngale xale la mhm. ku dóor rek da ngaa daw ci xale ñu gis ne mu nekk lu am solo lu nga xamante ne nit ñi war nañ ci roy léegi. parce que xale nekk na ku nga xamante ne soo naxtaanee moom rek mën nga am ci moom li nga li nga bëgg te doo sonn. kon ñu ñu jéem a xool rek ñu ñuy yaraatee xale yi jéem a roy ci suñu mag ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon ci jàngale bi nga xamante ne moom lañ doon jàngalee. parce que suñu saaliw dafa doon dénkaane ñeent mu ne euh, nit il faut nga am sëriñ bu lay yar. il faut nga am xarit bu lay wax il faut nga am ñun bu biir bu lay jox euh, courage bu nga xamante ne yow di nga mën a fexe ba def li ngay def li nga war a def yëpp te kenn du la ci sikk wala di nga am évolution ci sa ci sa wàll mm-hmm. beneen bi mu ne il faut nga am aussi xel mu lay yedd mu mel ni soo gisee ñeenti ndénkaane yooyu mu mu wax dafa da ko indi sànq ci sa biir wax nga ne suñu saaliw da daan jàngal nit mais jàngalal lan la woon mooy xool ma man ni may defee nga doxee noonu mm-hmm. parce que ki nga xamante ne à chaque fois day bind ci tableau moom li muy bind yow mu nga ko capter mën nga ko bañ a capter mais bu fekkee à chaque fois day def yow ngay gis surtout kilifa mag mu nekk ci biir ay xale di def mm-hmm. naan xale yi roy leen ci man loolu dafay nekk benn ndëgërlaay bu nga xamante ne xale bii roy day gaaw a waaw kay mm-hmm. day gaaw a miin day gaaw a capter li nga xamante ne moom nga koy jàngal waaye mu nekkoon ku nga xamante ne tamit ni mu doon yaree njabootam ci xam bu ma nee njabootam donga yaa ngi ci biir doom yaa ci biir parce que waxoon nañ ñu ko la dernière fois que ne sëñ Saliou xàmmewul woon kii doom la wala kii du doom mun ñëpp la boole mhm. jur leen mhm. ñëpp la boole uuf leen ñëpp la boole sàmm leen mhm. euh, te comme moom ni mu leen yaree ci njàng ci xam-xam noonu la leen yaree aussi ci wàllu liggéey ñu bëggoon nga ñëwul ñu tuuti rek ci liggéey bi nga xamante ne moom daan na ko def ba xam sëñ Saliou comme ni nga ko waxee mbay la woon ak euh, daara mbayam noonu la daan defee euh, liggéey boobu nga xam ne mooy mbay mi ak voyage yi nga xamante ne soit bëri na wala bëriwul ndax am na ñu ci jot a dégg mais ñu bëri duñ koy duñ koy faral di waxtaanee. Mm-hmm. voyage bi nga xamante ne def na ko te ci wàllu liggéey ak ci wàllu euh, daara jooju moo taxoon mu def ko. Mm-hmm. waaw Serigne Saliou de voyage am da xam naa bu génnee <laughs> zone Thiès bi mus mm-hmm. naa génn réew mi nag. waaw dem Côte 1950. waaye boobu jamono metti na nag. boobu maanaam addee jum jinne fi gun sàkkatee kër gu mag. njaareem moom la wuti ji woon. Mhm. Mhm. waaw voyage moom benn yoon la mos a génn boobu waaye bu weesoo loola. Uh-huh. voyage am yëpp génnul tund Cees bi. Mhm. nga xam ni bi mu génne bi mu jógee tund euh, libaas googu néew nu jaxate ak euh, côté yooyu noonu. daa dugg si Cees. nga xam ni comme daanaka voyage am moom daanaka génnul mhm. région Thiès bi waaw génnul région Thiès bi ndaxte bu dee ndakaaru mhm. benn yoon la fa mos a dem ci li gën a siiw benn yoon la fa mos a dem mhm. te booba it am na lu taxoon ma dem fa waaye nag nekk na loo xamante ni ñu bari it mënuñu la cee wax lu bari. Mhm. ndaxte kenn xamul woon lu ko génnewoon woon it. Mhm. kon voyage moom eh, li ëpp ci réseau bi la ko defee muy réseau Thiès bi ak li ko wër eh, ak li wër njaareem. Mhm. te lim daan eh, wër yëpp ngir wuti suuf ngir suuf la suuf su mu bàyyee. di ko yóbbu ci jumaa ji ndax jumaay borom Touba ji ak sëñ Mourou Moussa da koo mos a jaral lu ne. jaral jaral jaral jaral jaraloon ko it bakkanam. moom Serigne Saliou jumaay borom Touba ji da koo jaraloon bakkanam. waaye ci biir yar googu ngay wax ak ci biir eh, mbay mi mm-hmm. moom Serigne Saliou saa su nekk lépp lu muy bay mm-hmm. eh, eh, ba fii may wax ak yow lépp lu ci nekk sëriñ Cheikh bu ko génnee ci jumaa ji lay dugg li ci des day dugg ci waa kër borom tuubaay yi mm-hmm. nga xam ne moom Serigne Saliou daana wax daan ne lii nii ñuy liggéey di ko bay damaa bëgg bu ëllëg yomal xiyaamee bu ma ko yàllay faya ndaxte moom daan ne borom Touba de xalifa gi daa daa naaw ñëw sama kaw daan ne waaye bokkul ci mébét yi daan li nga xamante ni nag moom la ma borom Tuubaa di fayee muy tarbiye gi jaxasoo gi ma jaxasoo ndaw ñi tarbiye gi nag mënoo cee génn mbay mi daan bis bu ne càppet ma am li ma bëgg. bis bis bu ñu cee borom tubaab bu ñu cee càppet rek ma am li ma bëgg. Mhm. daan na daan daan na looloo ma may looloo ma may lii ma am ci moom. Mhm. waaw nga xam ne daana wax di naan mbay nii ñuy mbay di ko yóbbu ñàkk gee lekk gee dara. ñàkk gee lekk gi dara daan ni fii ak mi nga am bu ëllëgee wala xëyaa ku ci nekk li nga war a am muy nga ciy jaay ci ngooñ mi ngi mel ni nga jëlut nen toj ko tarbiya boobu tarbiya boobu sax ci wàllum liggéey boobu doon nañ cee ñëw bu baax daanaka ci daara yu bëri la ko waaye xel koom da cee raw surtout jamono ji nga xam ne ñu ngi waajal ngóob géeg yooyu waaw waaw bëggoon nañoo dugg bu baax ci xel koom gi maanaam mm-hmm. gën cee xuus maanaam liggéey xel koom ban ban façon tarbiyee mu fa def ñëw Touba Belal daan ni asalaamaaleykum mm-hmm. daan ko góor a mu ne ko Mbàkke mu ne ko waxal doo ngay borom Touba yi nee leen sëñ Touba ñëw na <laughs> waaw waxal doo ngay borom Touba yi ñëw na. góore jee daan ne ko da da daa di jàllale loola mu daan ko nee leen danañ sant yàlla ndaxte xel kom gii mboolem ku mag wax ànd ak borom Touba ñëw na fi. Mhm. mi mi fi di fi fanaano fi lay fanaan fi lay yendoo mboolem mag mu àndoon ak borom Touba fi lay yendu fi lay fanaan. daani xel kom gii de bu ma leeroon ne àdduna gépp teg nañ fi seen tànk ma tëj ko. te xel kom maanaam da ngay dem di fa ñàkk say bàkkaar di gën a set. خلكم داني كلي فري بكر تسرين ساري ودا جوني يوم الخيام داني كل يوم الخيام ده دمنا بنا خمنتني بدي خلكم جيسك tànk mbindeef tege na fi ëllëg bis kenn du fa taxaw daani ndaxte ni ma leen mën a misaali bis penc bis penc mooy xel kom daani képp ku fa mus a teg sa tànk ëllëg yoo mën a ëllëg bis penc da ngay bis de bàyyi nañ ko ca ginnaaw daan yéen ñi a taxaw xel kom doo leen taxaw bis penc ah, daa daan daana daana wax tamit daana wax tamit daan sul aussi ta fii lookaam fii njurulin woo bis oxra uh, uh, uh, xel kooma mm-hmm. xel kooma xel kom day bëggalub murit mm-hmm. maanaam daa nekk barabu fajukaayu soxla yi daa nekk barabu bo barab boo xamante ni saa su nekk malaaka yi suñu borom dañ sa bopp di nga da nga koy yëg si sa xol. wér na xel comme daa nekk loo xamante ni fii yaa ngi ñaq sa deret di sa deret di set. Mhm. xel comme xel comme day day day raxas ruu. Mhm. te doomu aadama li li li gën a métti ci moom mooy mooy ruugu tilim xel comme day raxasu ruu sa ruur lu mu tilim tilim boo duggee xel kom ruur gi set wicci xel kom ni ngay ñaqee ñaq di wàcc noonu lay rotalee say bàkkaar waaye noonu lay guddalee aw fan xel kom sa Saliou nee na képp ku fa teg sa tànk benn yoon doonte àdduna nga doon ba nga gontee nga ko am waaw ba nga xëyee nag <laughs> waaw surtout ba xëyee nag daan di daan daan di mboolem koo xamante ne teg nga fi sa tànk na sa xel dal ci bu baax nga ëllëg ëllëg borom Touba bu may fay képp ku fa mos a teg sa sànq borom Touba dina la xëccaale fay la te doo yëg ni fay na la. daani xanaa xamoo leen ni yéen ñi nga xamante ne woo naa leen ngeen ñëw ci sama liggéey bii bu ëllëgee loo xam ci samay jëf lañ leen atte waaye kenn du leen atte ci dara mooy loolu la day daal di tolloon le sëñ bi la waxoon daan ni ëll sëñ Fallou ëllëgee loo xam taxawaay bi dina yàgg ñu ne ko lu tax mu daal di Saliou du romb daraajay boobu du fa bëgg a bàyyi dara moo waraloon Sëñ Saliou di woote Xelkom waaye ku ne xam ne ne Xelkom tawféex am na fa joo xamante ne liggéey mën nañ ko ña ko liggéey ba mu toll fii mën nañ koo deqi mm-hmm. kon ñu ngi ciy woo ñëpp ñu le 26 novembre ci gerte gi mm-hmm. ak yu demee noonu ginnaaw ngóob moom jàll na mm-hmm. waaye ñu ngi ciy ñu ñu ñu ngi ciy ñaanale Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Saliou mu gën fa yàgg loolu te gën a wér te it ñu gën a yàgg ci ginnaawam te yàgg koo liggéeyal ngir Serigne Saliou ñu gis ne kon nu nga ko waxee rek ñu bàyyi xel le 26 novembre dem ci dem xel comme ni nga ko waxee ndax tarbiya moom tarbiya la rek te ku ci nekk sa tarbiya daf lay yokk waaye du la wàññi. Mhm. xam naa ci foofu dañuy ñëw rek ci relation bi Serigne Saliou Mbacké amoon ak ñi nga xamante ne mooy kilifa diine yi waaye aussi relation bi nga xamante ne Serigne Saliou amoon na ko biir Mbuur ndax ku ne Mbuur xam ne wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee sànq génneel yëpp diggante Thiès la woon. ak fi nga xamante ne mooy mbuur ndax euh, ku ne mbuur moom na sëñ Saliou mm. <laughs> ndax gis nañ ne wax dëgg yàlla Cheikh Béthio aussi mu ngi fi te nekkoon nag ku nga xamante ne ku takkoon sëñ Saliou la bëggoon nga ñëwoon ñu ci relation boobu mm-hmm. waaw sëñ Saliou de bi ñu ñëwee jëm ni région Thiès mm-hmm. mboolem kilifa ku fi nekk sëriñ Saliou jëflante na ak mm-hmm. jëflante gu rafet nag ndaxte bokk na ci kilifa gi mu fi fekkoon muy Euh, Thierno Mansour Baro waaye lu jiitu loolu sax sëñ Mansour ku amoon tawféex la ci Serigne Saliou sëñ Mansour si waaw ku amoon taw euh, tawféex la ci Serigne Saliou te am na fu mu jaar ak Serigne Saliou it am na fu Serigne Saliou jaar ak moom ci yu bëree bëri mhm. kon ñu ngi ñaanal moom xalifa Tijaan bi it mu gën fi yàgg loolu muy sëñ Babacar si Mansour yàlla na fi gën a yàgg loolu te gën a wér barkeb Serigne Touba waaye bu fekkee Thierno Mansour Baro moom dañ koo tegtaloon ne ko kii yilif jamono mhm. borom jamono dañ koo jox ñetti nag mhm. saa bu ñëwee boo ko joxee nag wi danga koy delloowaat. am na kilifa bu njëkk a ñëw. Mhm. du ñu dutu yi nag. bu mu ñëwee mu jox ko nag wi mu jël nag wi yeewu bu mu ñibbi yóbbaale. moo xam ne kii du borom jamono. Mhm. mu déggaat bi geneen kilifa. mu daal di jëlaat nag wi jox ko ko. Mhm. bi ñuy ñibbi mu yóbbu ko mu ni kon dañ ñaar ñaari ñi. bi mu déggee Serigne Saliou. mu daal waaxu ba ca ba mu sante jox ko nag wi. ànd ak délégation. Serigne Saliou daa raylu nag wi bi mu ko rayloo toggulu ko ba ñam yi baaxuloon mu boole ci ay xéwal yu bari. Mhm. sëf ko ci oto daa di wax sëñ Bay Jóob ak ñam àndal ni leen yóbbu leen ko. Mhm. Thierno Mansour Baro nee leen ko mu xéwlu. nga xam ne bi mu ko ko waxee Thierno Mansour Baro daa àndaat ak ñoom defaat tànki neen daa di daal di kii la ma sama bàyyi tegtaloon ni mooy jantub jamono mm-hmm. moo nekk xutbu samaan mujj mujjantalu jamono mm-hmm. nga xam ne moom Thierno Mansour Bara ca la jàppee Serigne Saliou mm-hmm. Thierno Mansour Bara ba ni mu fiy jógee chaque àjjuma day dem Touba yóbbu fa ay xéwal te dem Touba du sole daal la Serigne jaar naak foofu moom mbuur gi amoon na rab wu xawoon na doy waar wu fi nekk ba koy Serigne Saliou Thierno Mansour Bara moo ni Serigne Saliou euh, maa ngi ñaanal moom tamit njabootam gi yàlla nañ ko gën a yàgg muy sëñ Thierno Baroog ñu demee noona nga xam ni bi mu bi bi bi mu bi mu dajee ak rab bi ca ca fan fan daan dajee. nga xam ne boobu ñetti kilifa ñoo fi nekk Serigne Saliou Thierno Mansour Bara Kajara sama xel da ciy génn. Mhm. bi mu dajee ca ca ci Salaba yoon bi nga xamante ne mi ngi nekkee côté Tefes foofa la leen rab bi fekk Serigne Saliou da leen wax gëmmu leen. Mhm. bi mu gëmmoo mu jëflanteeg rab bi ba ba ñoom nee na bi ñu gëmmee dégg nañu teel. Mhm. diir bu yàgg ngelaw li bari noonu mun leen mën ngeen a xippi bu ñu xippee si résultat daan damaa jëflante woon nag moom daan te riiru malaaka yi moo rëy rëy goo xamante ni àttanoo leen ko waaw léegi kooku mooy kan <laughs> te Thierno Mansour Baro ku ne xam ne du a nag mm-hmm. te du gone kenn nag waaw mm-hmm. Serigne Saliou jaar naa foofu ñooñu ci mm-hmm. kilifa diine ci ñu bari nag ci wàllu ci ci ci wàllu googa bu fekkee relation noog Cheikh Béthio inna laa yafalu maa yashaa'u euh, Serigne Saliou yàlla moo jaarale seex Béthio ci Serigne Saliou waaye Cheikh Béthio coobeerab sunu boroom la waaw Cheikh Béthio sunu boroom moo bëgg a wane lu ko moo bëgg a wane boppam jaaree ko ci Serigne Saliou ngir Serigne Saliou wane Cheikh Béthio Cheikh Béthio day kéemtaanuk sunu borom nag inna allah ala kulli seen xadir gi sunu borom di wax mooy sunu borom man yàlla ma am kàttan Cheikh Béthio da ko Serigne Saliou da ko wane ci Cheikh Béthio ndax li tax wane ko ci Cheikh Béthio da ngay xool Serigne Saliou mënoon naa defal ku mënoon naa jël beneen sant. waaye daa xool koo xamante ne ab ceddo la. Mhm. bàyyam mës sa liggéeyal borom Touba. mu jël ko defar ko. Mhm. ba mu ko defar boppam mu defaral ko mbokk mhm. Cheikh Béthio nag Serigne Saliou jaral ko lu ne. Cheikh kër gi mu njëkk am da koo jox Serigne Saliou. oto bi njëkk am da koo jox Serigne Saliou. waaye kam ko jox xooloo fa mu ko jëlee. ba ngay am juróom-ñaari at la lay jël dugal la ci école Serigne Saliou mënoon na koo yóbbu xel kom. waaye yóbbuwu ko fa. yóbbuwu ko fa. ndaxte Serigne Saliou yéex naa sañ xel ko waaye boo fekk na got taxaw. fekk na Daaru Sanna taxaw. Mhm. ndax boobu ndax 47 la. Mhm. Euh, te te Serigne Cheikh mu Serigne Saliou mi ngi gane àddina 40 euh, 41. Mhm. waaw. nga xam ni kon mënoon na ko fa mënoon na kaa yóbbu ci yeneen daaraam yi. waaye yóbbu ko fa. da koo dugal école. jàngal ko. muy jàng ak ñëw bu ñëwee daane ko damaa war a def entrant sixième suñu saari ñaan na ko ni ko mhm. mhm. ñu naan bac ko luy bac mu ne ko a demaat ci beneen étape boo xamante ni da ngay tàmbaliwaat à zéro mhm. mu ñaan na ko ni ko demal nga xam ni a këpp te boobu umagul kër ndeysaan dem ba ca digg ba Cheikh Béthio kër gi mu njëkk a am génne ndeyam ak baayam ñu naan Cheikh Béthio cun dof na oto bi njëkk am noona moo tax xoolal li ko Serigne Saliou defal. maire boobu kay sama papa sama sama papa daje nañ fa ndax sama papa liggéey na ci maire maire bu Kaolack boobu. Mhm. ak sama ak sama tournoi bi nga xam ne moom lañ ma tuddee. Mhm. daje nañ foofu moog Cheikh Béthio ci maire Kaolack boobu. Mhm. foofu lañ doon liggéey ñoom ñoom ñëpp. daanaka ne sama papa mu ko mu koy nettali ne su su ko Cheikh Béthio di ko yóbbu xel kom daanaka moom sama papa moom moo ko yóbbu ak sama tournoi. ci benn Kassamba la ko def def duy ko suuf ba mu fees yóbbu xel kom. macha allah waaye daal nañ tamit euh, ndongo yi doon nañ ci xewlu bu baax a baax de. waaw xam nañ mooy kan. waaw ñun seen béykat yi dañoo de. Mm. ndeysaan waaw ndaxte mosut a bëgg bëtub Serigne Saliou xonq nag. Mm-hmm. moo tax li Serigne Saliou am lépp boolewul Seex Béthio ki dara. ndeysaan waaw. ñu ngi ñaanal xalifaam bi it yàlla fi gën a yàgg lu te gën a wér muy sëñ Saliou Ndigal yàlla na fi gën a yàgg te wér day jàmbaar moom te nekkoon ca daara ja mhm. ay rakkam nekk ca daara ja am ñenn ñoo xamante ne xëy na fekkante leen ca daara ja muy sëñ Saliou njurul ak ko mhm. euh, euh, ca nekk ca kaw mhm. nga xam ne xam nañ ci lu bari waaye Cheikh Béthio bu mës ta bëgg bëtub Serigne Saliou xonk am na bés ci njurul Serigne Saliou daal di wax gone yi ñu leen loo leen bëgg añee suba ñuy daan di ko ndawal ceebu jën ceebu jën ndawalu jën ñu xëy suba sëñ Saaliw yónnee kenn munta am jën ba sëriñ Saaliw jaaxle lool nag mm-hmm. daan di daan na man de sama bët bi xonk sa laaw de xanaa xanaa yàlla duma seetaan sama go nga xam ni. Mhm. gone yépp a mere sëñ Saliou moom. nii <laughs> la ñu doon ne sëñ Saliou. ndax ngeen ngeen bëggoon waaw ceeb ngeen ngeen bëggoon léegi amuñu ceebu jën. <laughs> léegi nag sëñ nga xam ne waxtu fekk na ko ko waaye fa la toog. Ah. nangu wut dem fenn ndax am na kersa ne naan sa laahu de am sa njaboot moom ñu lay romb. di la di la romb kenn ah. faale na ah, tamit foo yoroon nañ leen de. waaw waaw baax de. am sa njaboot mhm. moom sa kër. ñu la romb kenn faalewu la ah lii de metti na waaye ñu ne tuuti Cheikh Béthio ak ci jàmbaaram nga gaari oto bu mag boo xamante ni ay mbanay ceebu uh, uh, uh, ceeb ceebu ceebu jën yu yu masàlla la la indi nga xam bi mu duggee takk rek ñu ne ko Béthio Thioune moo fi ñëw hmm. waaye nag indi na ay xew yu bari su su lu jëmee nag loolu nga doon loolu nga doon ñaxtu sëñ Saliou daa daa daa daa réer ba digg ciy feeñ mu ne ko cay Béthio saa bu sama bët xonqee hmm. mu weexal ko hmm. daane waaye dina xam ni adduna gi du fi am maas ëllëg yomal xiyaam dafa am maas. ndeysaan nga xam ne dem na banaan ko beeco lii nii nga am lépp téeñ bi la yan bi ñëwagul. Mm-hmm. waaw dem na ba ko lii nga am lépp téeñ bi la yan bi ñëwagul. Mm-hmm. daan ko te li nga am nii lépp ñaanu donga yi la. Mm-hmm. te ginnaaw ñaanu dongo yi moo mën a def seex beeco nii mu mel. beeco maam bi kon. làq na ngërëmal Serigne Saliou ci lu wér nag. ci ci fànn yu bëree bëri ndaxte deux mille euh, deux mille cinq. deux mille cinq lan ko lan lan jël am mbind. yóbbul ko Serigne Saliou. comme mbindum kaamil. Cheikh mhm. Béthio lañ fa fekk. sëñ Saliou dana ko teral dana ko neexalal ma ko. moom sëriñ bi. Mhm. mu ne ko mbàkke de li ma amoon lépp jox naa la ko xanaa ma dem ba lebi. Mhm. ca banque ba ñëw jox leen. xoolal kooku lan la ko li ko Serigne Saliou jaraloon. waaw te te te te taxul taxul mu teggi tànkam benn yoon. benn bis toog na eh, njurul Serigne Saliou ni mu soonoo ginnaaw moom wetu ndeyjoor la daan sonn te saa su nekk penku lay lay lay jàkkaar lool mhm. sàkket bi xëtt euh, euh, jant bi së xëtt sàkket wi mhm. mu dem ci bëtti sëriñ Saliou mooy Cheikh Béthio xool ba ci yàgg bëtti mel na luy jooy mu ne ko mbàkkee de xanaa bëtti daa mel luy jooy mu ne ko waa jant bi la Cheikh Béthio summi daraa ji fàttee ko foofu mu ne ko di ko bari la lool mhm. moo tax Cheikh Béthio musta <laughs> sol yére ko ndeysaan waaw moom uh-huh. jëmm ji mosta sol yére solaat ko uh-huh. yére yére bu mu mën a doon benn yoon la koy sol uh-huh. kooku yàlla teeral na liggéeyal waa wa jus yaaral ulama wa saalihin wax ñu moo wa siddiqin wa suhada wa saalihin wa xasna ulaika rafiqa gis nga gaa yu a a liggéeyal sa sa sa martaba di gën a yokku waaw gaa yu baax yi loo leen gën a mën a liggéeyal question boobu sax moo koy moo koy tëj ñu wax rek maanaam ci wàllu tasawuf googu maanaam importance bu mu am liggéeyal liggéeyal waa ju baax ba am ngërëmam loolu lu am solo la. Mhm. waxtaan ci tuuti rek. loolu gën tarbiyee ko daal mu jariñ la. waaw maanaam doo bëgg alxuraan danañu ku bëgg dara da ngay joxe li nga gën a bëgg lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuuna wa maa tunfiqu min shay'in fa inna llaaha bihi aliim mhm. daal boo bëggee dara da joxe li nga gën a bëgg. Mhm. ñun na dañ ne dañoo yaakaar borom Tuuba. wala da ngaa yaakaar Serigne Saliou. maanaam li ci njëkk da ngay gëm yàlla. gëm yonent ba pare gëm téere yi gëm gaa yu baax yi gëm ndogal yi. Mhm. boo defee lii lépp ba pare na da ngay wéetal yàlla. da wéetal yàlla xam ni yàlla rek a fi nekk. Mhm. waaye nag yàlla moomu moo la tegtal nii. Mhm. إن الله سر من المؤمنين أنفسه وأموال بأنهم جنة يقاتل في سبيل الله فيقتل ويقتل وهذا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومنافع بغير من الله فاستبصروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم نينا بفك fekkee da أجل a bëgg جند أجل ngeen koy jënd àjjana bu njëkk ni nga ko daan jëndee mooy da ngay joxe sa deret joxe sa bakkan joxe sa alal léegi nag fi ak joxe ñaq. ñaq woowu nag moom ngay moom ngay jaayante sa diggante ak yàlla. te di ko defal yàlla te yàlla rekk tax nag. boo ko defee la yàlla te yàlla tax yàlla teral la ci coobareem te moom rekk mooy tax it. te mhm. teral bi mu lay teral dina dem ba ëllëgee ba xiyam dina la suturaal sutura boo xamante ne da nga naan man yàlla nan lan laa la defal ba nga man maa suturaal ba waxoo samay jëf ci bit ci digg pénc mi lu ci demee ne ñaq yi ñuy ñaq di ko di ko joxe addiya moom sa moom yàlla suñu moo moonu ci diggal nii moonu ci diggal nii daandi saa boo leen ko defee jënd ngeen seen ajjana mm-hmm. bi am na leenu janaat yuqaatiluuna fii sabiilillaah fa yaqtuluuna wa yaqtuluuna daandi boo leen ko defee jënd ngeen seen ajjana waaye loolu la koy njëkk def nag mooy da ngay wéetal yàlla ndax am murit mënoo koo doon mukk lu dul dangaa wéetal yàlla am murit mënoo koo doon mukk lu dul dangaa wéetal yàlla kon nag yàlla nañu suñu borom gën a defal tawféex te gën a sax ci ak jaamu yàlla te gën a saxit ci bëgg yàlla ak ci wéetal ko barke Serigne Saliha amin amin incha allah mu mel ni am na solo am na solo wax dëgg yàlla liñ naan ñun manqué wuñu ay royukaay manqué xëy na taxawaay bi rek moo des ñu naan instant bi ndaw ñi mooy loolu instant bi mag ñi xamatuñu fuñ jëm L'heure est grave, mais comme ni ñu ko suñu kilifa waxee l'heure est grave, mais la gravité de l'heure na saurait empêcher la personnalité d'un musulman convaincu. Mhm. kon nañu jéem a def enracinement jàng ci suñu mag ñi jàng ci li nga xamante ne moom la ñu moom ba pare soo ko def ouverture ci tendance ak modernité yi nga xamante ne ñëw na fi xëy na buñ ko defee rek lu ñu ree ndax wax dëgg yàlla suñu mag ñi liggéeyal nañu nga xamante ne jàngal nañu li nga xamante ne mën nañ cee jëriñoo mm. waaye nag <laughs> xam naa sëñ Assane moom mm. tey du fi du fi ñëw ba dem mm. te lu ñu benn prestation bu ndaw rek ci xasida xëy na tey moom radd yi la ñuy jël la ñuy radd tëjee rek. Ah, xëy na balaa dara daal. ñu bëggoon ñu mu jàngal ñu si tuuti rek. Ah, xasida boobu sëñ Sall sëñ Sall dafa bëggoon lool daanaka su doon ñaanal julli yëpp sax moom xasida boobu doon tari ba mu jeex rek. ndeysaan ah, kon mu def ci xéewal rek ci may ñu si tuuti rek. dëgg ñu ngi ñu fas nag. Mhm. Eh, kër gi yàlla na yokk amiin incha allah ñu ngi fas ci barkeb xasida gi rahmaanu rahiimu gi. kër gi yàlla na ko suñu borom téyel boppam. amiin te yokk ko te balaa déwén ci heure bi mhm. mu gën a fawx. amiin amiin ñu ngi fas ci barkeb xasida gi. Mhm. mboolem lu ñuy yóotu yàlla nañ ci jot. yàlla na nu suñu borom dugal ci biir kaaraangeem te te te sëriñ bi dimbalu nu yokk suñuy xewal ñu ngi koy fas ci barkeb xasida gi te mboolem ku fi am soxla ak ku ñuy dégg ku ñuy déglu mm-hmm. ak kuy bàyyi xel télé bi mm-hmm. ak fu muy mën a nekk yàlla na ko suñu borom dugal ci kaaraangeem te yokk ko barkib Serigne Saliou waaye nag man man maa ngi ciy ñaanal sama ñaanu bopp samay sama waajur eh, samay waajur sama ñaari waajur yi yàlla man fi gën a yàgg loolu te gën a yàgg waaw man ëwma ko dul sama baay nag waaw ëwma ko dul sama baay am daf defal lu ma jomm uh-huh. ndaxte bari na wax xamante seen baay jur nañ leen yóbbu ñu leen daara uh-huh. waaye man su ma demee ba sama baay jël ma jur ma yóbbu ma yóbbu ma daara uh-huh. dimbali na ma Mm-hmm. kon ma ngi koy ñaanal ak mboolem koo xamante ni am nga yéen a yóbbu sa doom daara rek ak ku yóbbu sa doom daara mm-hmm. yàlla ñoom suñu borom defal lu kawe seen njortu borom kër gi nag bala bala yag dara mm-hmm. yalla taw daje taw fi sëriñ saadiw barke bi yermane amin inshallah a'udhu billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim ya rahman ya rahim رحيم ربي بما يزره الأذان قد فجأ بجاه أفضل من لله خرج جاء ربي بما يزرع الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله خرج جاء عندي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساطعا ملأ محمد صلوات الله في أبد علي في اسمه كل بي كلاء هو إله الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برأ ناجيت جل أهواما وكرمني تكريما ما بالوكل من بريئا رحمن يحب لجميع الخلق رغم من يغني عن شر من قرآن وقراء وحكمة المصطفى عن كل مفسدة والترى من القلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورايا هاديا ردأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الرداء محوت ما قد نوى وهو القلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجأ آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرني آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرني آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي آمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن وفي الجدال أدي سرين سالم. آه، بارك الله baax a baax mhm. xam naa ne mbokk téléspectateurs yi tamit bëgg nañ bu baax a baax mhm. ñu ngi lay sant bu baax daal ci teewaay bi bañ la ko waxee tegoo ci baat kontaan nañ bu baax a baax daal mhm. xasida gi am na solo lool te neex <laughs> waaw soxna Kumba kon dañ lay bàyyi nga tàggatoo mbokk téléspectateurs yi avant ñuy ma ah, tamit wax dëgg yàlla dañ naan amin incha <laughs> allah ba pare <laughs> dafa dëgg yàlla am na solo macha allah mm-hmm. région ñu aussi li nga xamante ne moo taxoon ñu ñu def invitation bi mm-hmm. waxtaan bi am na solo di ñaan rek lépp li nga xamante ne ko bi mu doon njariñ waaye aussi ñu jariñoo ko incha allah te dañuy jaajëfal ñëpp jaajëfal techniciens yi mhm. jaajëfal soxna Rokhaya Saliou xam naa mu ngi toog ci régie bi mhm. waaye kontaan daal na leer <laughs> xam naa moom balaa balaa sëñ Assane bi génn war na ko utal café bu tàng bu génnee mu ah, jox ko ko barkeelu si <laughs> ñu koy jaajëfal bu baax waaye di jaajëfal aussi Idi bi ñu suivre depuis Ngaparou wax dëgg yàlla moom ak Abdallah mu ngi ba Dakar sànq ba tey ñun ñuy jaajëfal wax dëgg yàlla di leen remercier bu baax ak képp ku nga xamante ne doon na suivre émission bi di leen wax ne émission royukaay baa ngi nii képp ku nga xamante ne kilifa la képp ku nga xamante ne responsable nga képp ku nga xamante ne war nañ roy ci yow rek dinañ la waxtaanee ñu am si njariñ ngeen am si njariñ incha allah di leen jaajëfal bu baax ba ah, beneen yoon jërëjëf soxna Coumba yow mhm. kontaan nañu bu baax <laughs> maanaam waxtaan yi am na solo lool question yi am na solo dañ mhm. nañu bu baax a baax a baax ci yow di lay gërëm bu baax di la sant jërëjëf la sant kon sa kàddu bu mujj rek incha allah mhm. waaw moom kay xanaa di gën a santaat bu baax te di ñaan it sëriñ bi defal ñu taw feex rek amiin incha allah naa lool nag wax dëgg yàlla ndax kër gi moom day suñu kër bopp. Mm-hmm. waaye nag jàpp jàppante nañ te duñ bàyyante ba faaw. incha allah sëñ Mouhamed. Mm-hmm. soxna mm-hmm. Kumba. ak euh, soxna Roqee Saliou mi nga xamante ni. moo sabab xameel gi. ak lépp ñu ngi koy ñaanal. Euh, Serigne Saliou féete ko fépp te defal ko taw feex sahiran wa baatinan amiin incha allah borom Tuuba ak euh, euh, kilifa gii ma ànd ak muy sëñ Ablaye Gueye wakkaana xaqan damaa yéem mhm. maa ngi koy ñaanal yàlla na dajeeg taw feexi Serigne Saliou mhm. ci barke mbootum xasida gi ak mboolem ku nekk nag ci biir kër gi mhm. technicien yépp ak borom kër gi ñu ngi koy ñaanal comme ni nga ko waxee woon ci njëlbeen gi mhm. waaye nag maa ngi koy ñaanal xaas goo xamante ni mhm. dina ko topp ba faaw liggéey bi daal bëgg naa daal mu gën a kawe lool incha allah incha lay génn bëgg naa nag ci mboolem euh, euh, mhm. soppe Serigne Saliou ak fu waay mën a nekk ak ku ku ku képp koo xamante ni yaa ngi yaa ngi doon bàyyi xel émission bi di ko ñaanali féex bëgg nañ lool lool lool lool ba fa mbégte yam yal na Serigne Saliou boole dimbali te defal ñu taw feex amiin amiin jërëjëf sëñ Assane ñoo la gën a bëgg kontaan nañu bu baax a baax a baax ñu ngi nuyu nag waa régie bi waa technicien yi ñoom ñoom ñoom ndom soxna Kia Penda ñu ngi leen di bu baax aram ñu ngi leen di jaar bu baax a baax a baax Eldo yow ñu ngi lay ñaanal <laughs> suñ borom defal la xew. jox ma ñaanal yaatu jox ma ñaanal. defal la xew bu yaatu ba télé bi foo xasal yokku la ñu la koy ñaanal bu baax a baax a baax. amiin amiin ak Cheikhul Khadim. amiin incha allah bu lay ziar maa ngi ziar sama yaay soxna Bose Badiane. di sama mag di nuyu waa boulangerie ba. Hmm. albaraka ñu leen nuyu baax a baax a baax a baax. waaw ah, leen ziar bu baax a baax mbokk téléspectateurs yi. <laughs> Uh-huh. fii la ñuy yem rek ba beneen yoon incha allah. incha allah di leen ziar bu baax a baax hmm. jërë ngeen jëf